2024 4 avril Yamok ak 64e édition euh, fête de l'indépendance amis fidèles téléspectateurs de la télévision GTV dans ak c'est une édition spéciale consacrée à cette euh, donc importante tradition républicaine dit euh, 4 avril fête de l'indépendance nous avons di dit avec la levée des couleurs bi nga marqué cette année ci donc le début mandat du tout nouveau président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye d'ailleurs même mi nga xam def na euh, discours à la nation euh, bi nga xam rituel la c'est une tradition républicaine euh, ni ko njiti fi jeet jaax yëpp doon defee ñu jot ko teewlu démb ci ab bataxal bo xamante ni fësal na kon ci kanamu askan bu Sénégal gi yëpp fi ba ci bitim réew d'ici et de la diaspora mbokk yi ngir nak mm, waxtane lepp lu jëm ci bëccëgu tay gile inshallah duñ ci wéet ben yoon dañu ànd ak yéen ak sunu ay euh, naataango nekk ci kër gi waaye tamit suñu invité euh, historien xam-xam màcc lool ci wàllum <clears throat> taarix dañ ci ñëw présenté ko waaye tout abord maa ngi fi ak ki nga xamante moo di sama naataango Abdoulaye pay féete sama mm, ndeyjoor Abdoulaye maa ngi lay nuyu. mbégte ak contentement bokk ak yow plateau bi di remercier surtout téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy suivre euh, ni nga ko waxee nag mu nekk édition spéciale boo xam ne tey dañuy célébrer li nga xam ne moo di suñu 64e accession à la souveraineté nationale waaye internationale mais Abdou li si gën a am solo mooy dinañ ñëwaat en revue si trois jours yi di rappeler ne trois jours yi Sénégal euh, am na événement yu bëri yoo xam ne xew na fi diggante li nga xam ne moom moo di investiture suñu cinquième président di Bassirou Diomaye Diakhar Faye waaye tamit. Euh, démb mu dem amal li nga xam moo discours à la nation tey ñuy xaar li nga xam ne moom moo di des couleurs bi waaye xam naa ne bu si loolu paree sax li nga xam ne sénégalais yëpp ñu ngi koy xaar aussi moom mooy liste gouvernement bi nga xam ne tamit boobu wax léegi depuis démb ñu ngi xaar xam naa suite lay doon tey loolu lañ leen di xëyee ànd ak yéen mu nekk matinée boo xam ne incha allah nous allons fêter l'indépendance mais surtout dinañ ñëw waxaat si li nga xam ne nag moom moo di wàllu politique ak taarixu Sénégal. mu nekk lu am solo incha allah dañ ko euh, fàcc ndax amna ci ay euh, ponk yu solo yo xamanteni jeun nga ko jukki ci lenn ci ñi nga xam ne ñoo di way takk der yi ak seen ko liggey euh, di lo xamanteni ni duguleet nga diko def euh, ci kanam touti téléspectateurs yi dañ ko découvrir mais également ñu ko waxé ci plateau bi ñu ngi fi ak suñu benen natango ci kër gi di El Hadji nga xamanté également xam-xamam kenn ko nattable waaye tamit taxawam ci liggey bi ñu na a seq ak moom waxtaan inshallah ak suñu gan laata ñu koy présenté El Hadji Bour ngi lay nuyu. Abdoulaye Abdoulaye Ndiaye ñu ngi sant yàlla di julli ci yoon tam bu bi di la ziar di nuyu Ablaye Paye di nuyu tamit suñu invité. Euh, di santaat yàlla bu baax bi ñu yàlla suñu borom mi nga xamanteni mom la dara teewul may ñu fekkewaat la 4 avril. 4 avril nak tay bu ñu 64 ans ñu ni élection yi nga xamanteni mo moo am Sénégal le 5 septembre 1960. te élection yooyu amuloon candidat maintenant Senghor tey jii moo ñëwoon teg. ñu voté. mu jël mu jël li nga xamante ni mooy ndam li bañ tolluwaat ba ni dund nañ 64 ans. yaakaar naa ni sant yàlla war na. waaye sant yàlla war na ci ñu tombeek euh, président boo xamante ni mu ngi doon xale ñëw fekk si li nga xamante ni moom mooy 4 avril di ñaan yàlla ci réew mi jàmm di ko ñaanal Sénégal di ko ñaanal askan ni wax ni Sénégal daal. am na indépendance waaye waaye nañ ñu bàyyeek suñu bopp. Mhm. indépendance am ko. Mhm. am dem ak sa bopp mooy li gën a mhm. wóor. waaye Sénégal bu ñu nee am na. indépendance mooy moom sa bopp waaye mën sa bopp. mooy li nga wax sànq mën sa bopp. bu nee Sénégal am na indépendance nag am na ñu ci liggéey Sénégal ak i buuram Sénégal ak i dagam. Sénégal ak ñi mu àndal ñoom ñëpp war nañ ci waxtaan gën mu gën a mu gën a xóot. Mhm. loolu xam naa ci kanam tuuti ak professeur Lamane Ndiaye. Mhm. dinañ ko gën a yaatal incha allah. incha allah moom moomee sax ci lañ ñuy daal di dugg euh, di euh, professeur Lamane euh, Diarra Ndiaye nga xamante ne également xam-xamam màcc na lool ci wàllum taarix di historien am mbégte la ñu def dalal ko fii ci GTV ci sunu édition spéciale jëmale ko ci quatrième lii di 4 avril soixante e édition bu nag sunu accession à la souveraineté internationale di indépendance. conférence bi euh, euh, ñu ngi lay nuyu di la dalal. waaw maa ngi lay fay nuyo bi di sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, di nuyu waa Sénégal gépp nag ndax bis bi dafay bis bu màgg bis boo xam ne ni dafa am taarix fii ci réew mi am lu bari lu ci jaar bu ci kanamee dinañ ci dem maa ngi nuyu waa kër gi ci ki nga xamni moy directeur bi ba ci ci gëna ndaw euh di nuyu ñu ni sétan di béral nuyo ki nga xamni ni moy bourguewal ngeen invi moo mo invité fi ndax sama mbokk la di sama xarit boole ci dama koy wax ni ko bourguewal man dama koy bañ ndax bourguewal amul baj géwél moo am ndax xam nga xeeti géwél yi baj géwél moo ci jiitu waaye gawlo moo ci tegu fara tegu ci rab tegu ci jamu géwal tegu ci dafa am nomenclature am architecture wa dafa am comme classe sociale bir mm-hmm. biir yi dafa am hiérarchie gouvernement la wa mais nak mom man na manes nako wax bour géwal xam nga lu tax ndax mom mamam makhassen mo ando nak euh, ñuk fam joge pam kunda ñëw sanc plein dedd fi ci kadior te ñuk fam mom mu jur waan ñuk mu jur ma jambal cawaan mu jur njóogu maa jambal mu jur décc fi njóogu mu jur umba amari ngoon a sabel mi nga xam ne moo jëkk a nekk damay lu ko jor mhm. kon moom ay maamam ba léegi dañuy ànd ak buur mhm. géwal nag buy ànd ak buur bu ko neexee ni man buur géwal laa loolu moo tax man nangul ko ko <laughs> saañ ba saañ ba la ca la ca la ca biir biteel ba lay xeeñ ah, ah. waaw loolu tax ma nangul ko loolu. loo xamante ne bu ñu ko xamee ci histoire. te jotam may ko ko. Mm. mais mm. toujours gis nga am na ñoo xamante ne bu ñu sañoon li ñu xam. dañ koy xam-xam am na ñoo xam nañ koy yor soxor ci. mooy tëdd sa kër yor sa xam-xam nekk ak moom. Mm. waaye nag ki nga xamante ni toujours day bëgg a dox mission. di ko di ko di ko di ko yaatal kooku yaakaar naa ni am na solo te moom ci ñooñu la bokk suñu lijaay la. suñu papa la suñu lépp la yar ñu nag. bari na lu ñuy wax fii wala nit di ko dégg ñu koy wax. ci moom mi lañ koy jëlee. Mhm. parce que macha allah jàng na ko mais jàngale na ko. Mhm. am na solo macha allah xam naa ne waxtaan bi naa neex loolu ndax ah, ñaari kànga yu ñu fi am ah. <laughs> du yomb tey sañ-sañ yi rafet na ah. tey tey plateau bi dana ala doomi Ablaye. waaw macha allah en tout cas élégamment bien habillé. en plus euh, xam nga nit buy wax euh, te maîtriser lu mu wax xam lu mu wax. Euh, dafa dafa am solo rawatina bis bu mel ni bisu tey Abdou. Mhm. Euh, parce que bis la boo xam ne Sénégal dafa moom boppam te moom suñu bopp da ciy bokk nag mhm. xam sa bopp. Mhm. ndax boo xamee sa bopp di nga xam yow yaay kan. xam li nga war a def xam li nga war a jomb. te ñoom yàlla daf leen may chance boo xam ne. ñoom ñooy bàyyi seen baax baax di ñu waxal suñu baax baax. mais tamit ñoom ñooy ñëw dugg ci famille. wax la fi nga bokk wax la ki nga doon ba nga fa am solo ñoom ñoom kan moo leen di waxal seen i kii aussi waaw ñoom mais nag ñoom ak mën ak ñoo mën a waxante yu baax seen i biir ñun nag dañuy waxante yu baax ñu a waxante yu baax seen i ñoom dañuy waxal rek déggoo li moo ah waaw waaw waaw c'est vrai ah xam nga ne après dañu dañu mën waxante lu baax mais boo paree taxal ñi rek. mais mais war nañoo may tamit ci ci ci waa pay ci ñoom pay pay yi ak tamit njaay njaay ah, yi. ñoom nañu ah njaay yi yéen. Ah. non loolu loolu tonton Lamane dina si ñëw comme ça bu ko defee après. nu ah. am nu mu nu ñu def ak moom waajal ko ndogu bu am jom. Mm-hmm. ndax nag euh, góor ku ko teral. Mm-hmm. Euh, ku ne tëral ko waaye tamit ku si nekk euh, li ñuy wax rek sa deret moo la moo la sonal donc am na foo xam bu ñu la fa laalee rek mhm. ni nga mer rek ngay def mhm. mais en tout cas xam naa ne dinañ si dina am solo parce que mhm. fu mu ñëwee dafa am solo te je tiens à ce que ñuy rester si tradition yooyu Abdou instant bi dañu toll si euh, crise des valeurs dañu toll si li nga xam ne moom mooy dégradation des mœurs mœurs yi dañu commencé yàqu di di légèreté di si am et il faut que ñu taxawat pour xam ñun ñoy kan te euh, face euh, li nga xamné mom modi menace bi nga xamné mom mo am actuellement parce que dañ tollu ci mondialisation tollu ci globalisation. Mm-hmm. lenn dafay xaw xew États-Unis mm-hmm. à la minute qui suit yow mi nekk Sénégal fii da nga koy am wala mu xew Chine wala feneen wala feneen sauf que xamuñu ne société yi bokkul. Mm-hmm. culture yi bokkul tradition yi bokkul religion yi bokkul. donc tey jii nii ku mel ni tonton Lamane bu ñëwee ak ñeneen ñu mel ni ñoom su ñu ñëwee ñoom ñoo ñuy fixé waatal ay garde-fou yi nga xam dañ ko waroon am ba nga xam ne olof dafay faral di wax ne li nga rus ak li nga ragal moom mooyam mhm. ndax léeg-léeg gor boo ko fekkee si dara ne ko ah yow de say waajur bu ñu ñëwaatoon que le la de defar sa guide ça veut dire qu'en âme et conscience tu sais que cette personne là euh, waajal n'est ko préparer n'est ko mais tey jii nag àdduna toj na moo euh, ne bisu tay bi aussi occasion la ñu def zoom ci point bobu nonu mu nek point bu important Abdou. amna solo machallah campagne de décor euh, ci lu jëm ci kon muni ak économie émission bi lé tey euh, Nous avons ko tout à l'heure Daniel dem au niveau donc euh, du palais de la république ngir tatan taataan euh, lu jëm ci cérémonie levée des couleurs bi nga xamante ni marqué cette donc cent quatrième édition de l'indépendance bi lii ku contexte bi ko et puis daañ tout à l'heure parce que ce n'est pas une première fois que l'oldeam. on se souvient même de 2020 bu avec donc la maladie de la Covid 19 bi nga donc on a on l'a célébré au palais euh, donc euh, à travers cette levée des couleurs dans ci ñeu ci couleurs yoy ak drapeau et mandragay avec notre historien du jour euh, waye tamit euh, dinañu xaaral ni configuration euh, wala bokk nomenclature bu gouvernement bu yes bi nga Ousmane Sonko donc barki Demo lañ ko daldi siwal bi nga xamanteni jitu rew plateforme digitale Facebook ak seen mbaari yi waye tamit ci canal 12 bu tenté ak mboolem yi nga xanté modi TV D'orange wala bok yenen euh, plateforme yi ngeen ñu mëna topé mais euh, ba li ñu ñëw ci waxtaan wi ak suñu euh, ak tamit li ñu war ci ay reportage mhm. mhm. ak historien bi dama bëggon rek ñu def tour de table kenn ku ci nekk lan nga fàttaliku ci fête de l'indépendance bu jotaan donc comme yaa mujjoon parole bi mhm. damay damay dem ci bour laaj ko fête de l'indépendance ci naka la ko doon fekk ak it naka lan la ci fàttaliku tant ñu dugg ci biir waxtaan bi. waaw jërëjëf euh, yaakaar naa ni bu ñu nee feetu indépendance am na lu bari loo xamante ni dala koy fàttaliku boo nekkee ndaw. Mm-hmm. rawatina nag ñun dañoo amoon benn. sens dem obélisque seetaan yi noonu dañoo juddoo ginnaaw raay. Mm-hmm. suñu kër kàncaar yi ñoo jàkkaarloo. Mm-hmm. loolu leer na kon ku war a mën a xeex nga doon bu dee yow dëkk. waaw ñu daan waaw loolu bu ñu daan bu ñu daan euh, xawoon na maa ragal moom <laughs> topp moo bàyyi ah. léegi daan ki dañuy dem camp militaire wala buñu ñu défilé ba ñew ñom fofu lañuy ñibi ci si waat hmm. muy diinaa njaay daan ko dégg hmm. mo daan ci para nga xamanteni ñepp ko xamone ci ñi wacc para won nga xam mamalka hmm. xel dem na ci mom momit fofu la nekkon euh mu nekk souvenir bo xamanteni ci Sénégal da lay leen bu na delsi ci diñ ki gis sa bop gis sa bop gi moy kat ñun buñu ñu sax dindi nañ jingi buñu ñu gi deñ na loolu dina la jox boobu nii nga gis militaires yi ñëw wàcc défilé mu nekk loo xamante ni lu am lu ama am am solo waaye loolu lépp nag taarix la waaye am na lu ko solo mooy nit ki des fois buñ la mayee sa indépendance ba pare hmm. Hmm. dañ laa war a bàyyi nga dem hmm. baa booy dem ñu xalaat ni waroo mën a dem ñu gunge la loolu maa nga feneen ca wàllum réew parce que réew moo gis mu taxaw am na lu taxawal réew ma mhm. am na lu ko sos am na loo xamante ñoom ña dëkk ca dëkk ba mhm. ñoom ñoo ko mën a doxal parce que ñoom ñoo gën a xam fay metti mais des fois nag liñ naan la bàyyi nga dem ak sa bopp mhm. te loolu moo dama dafa nekk loo xamante ni solo beneen tamit ñuy ndokkeel tey li nga xamante ni moom moo fi xew muy président bi nga xamante ni moom lañu am muy Basiru ñaa ñaaxaar jomaay jomaay jaaxaar fay jomaay jaaxaar fay man nag yaakaar naa yàlla def na mosuñoo gisante mais le président Ousmane Sonko gisante nañ. Mm. mu nekk nit koo xamante ni wax dëgg yàlla man bi ma gisee loolu daf ma marqué ba léegi parce que moom mm. moo ma xàmmee. Mm. muy kër Aminta Lo Dieng fii. bi ma xàmmee ñu xamante nuyonte waxtaan ma ko ndax man na ma am sa numéro mun na bien sûr wokk ji ni ko jox ko sama numéro. loolu tamit marqué na moom bi ma ko gisee. ma ne ah vraiment kon waa ji ni ñu koy déggee. tey jii gis nga ko mais mu waxtaan ak man waxtaan bu yaatoo yaatu. boobu léegi nag ma yor numéro am. lu xew des fois mu tontu ma waaye gëj na maa dégg nag. <laughs> buur yaa ngi waxaale de. waaw gëj na maa dégg tontu. <laughs> gëj ngeen a xam naa ne daal. <laughs> gëj ngeen a euh, déggante quoi. li am solo daal mooy réew mi li fi nekk mooy nañ ko téye te bañ koo bañ koo. xeexee bañ koo xeexee. am réew kenn du ko xeexee. Mm-hmm. Mm-hmm. am réew kenn du ko parparloo. Mm-hmm. nañ xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi te liggéeykat yi fi nekk. ñu encadré leen. mais bul teel a ñëw rek tiital ñëpp. am solo dalal. te liggéenti léegi war a liggéenti ay xale ngeen. am na lu mm-hmm. bëri loo xamante ni war nañ ko mën a am ci kanam. def ko mm-hmm. biir askan Sénégal. c'est important un discours très poignant. Mm-hmm. Ah, Laye Paye yow tamit euh, xam naa ne ah, gone HLM moom jege na euh, place de <laughs> place de l'obélisque. waaw place de euh, fële nga xam ne moom la ñuy defaree 4 avril. te xam naa ne kuy mënoon seetaan nga. ku mënoon seetaan la man sama seetaan sax da daan dépasser fête bi parce que bien avant fête bi lañ koy lañ koy préparer à rappeler que ni. Euh, ñun ñi nga xamné ne euh, génération 90 vingt jëm kaw euh, chance biñu am moy fête nationale bu daan am ci école yi dañ daan jël élèves yi ñuy défilé mm-hmm. donc ça se préparait au moins une semaine voire dix jours à l'avance mm-hmm. ci école yi dañ daan jël les meilleurs mais aussi dañ daan def cours yi le soir dañu daan def ay allées di def défilé parfois même ay militaires ñom ñoy ñew di la di la di la defal lolu euh, je rappelle que aussi ki nga xam mom modi moo di Rose mom mi ngi nek mm. fi nga xam mom modi HLM la deuk té euh, ku wax défilé au Sénégal nit munul xalat té xel demul si ki nga xam mom modi moo di euh, Doudou Rose mm. pourquoi parce que dafa am ño xam moy majorité nga xam ñom ño ñoo image même li nga xam mom modi fête nationale bi mu len di tëggal donc ñun dañ daan boole dem di sétane répétition yi malgré répétition yi ko woon HLM mais dañ daan bëgg di dem tout le temps pour xool tey ban way ban bàkk lay indi ainsi de suite mais du coup préparer euh, benen bi moy Abdou gis nga fête bi euh, c'est plein de de souvenirs et de sens pourquoi mooy wax lolu parce que c'est une fête bo xamné ne euh, défilé yi bu tableau la tableau d'art la bo xamné bu si nek bu après tu te dis si ngay si ngay apprécier xam nga bañu xalé ndaw torop xamuñu woon torop wala miinuñu woon torop yi nga xam ne moom moo di yenn technologie yu avancé yi par exemple bu 4 avril amaan euh, li nga xam ne nag moom moo di euh, euh, armée bu Sénégal suñu force de défense et de sécurité si lañ daan profité pour ñoom génnee li nga xam ne moom moo di moyens yi nga xam ne moom ñëpp am nañ ko mu nekk moyen logistique waaye aussi mu nekk ressource humaine bi nga xam ne am nañ ko mooy personnel bi mu nekk waa armee de terre armée dem leer mu nekk marine wala ñi nga xam ne moom moo di la gendarmerie nationale lépp lu mu si mën ti doon Euh, da fay nek ño ne dañ leen doon gis euh, ñu représenter leen donc man je me dis que loolu mooy li nga xam marque na ma ci défilé mais aussi ñi nga xam mom modi les tirailleurs parce que euh, buur dafa wax lu am solo. kaw mm-hmm. caare la nekkoon. Mm. tey jii nii histoire da fay jangal li nga xam mom modi moo di histoire caare le camp de caare. Mm-hmm. jangal ñu li nga xam mom modi tirailleurs yi tia ah, ñoom leen daan décorer parce que à la fin ou défilé dañ daan gis ki nga xam mom modi président bi ak ay autom euh, bu ñu paree euh, président bi daf leen di décorer ñooñu noonu bu ñu leen daan décorer da ngay gis ne tamit histoire am na parce que dañ la daan expliquer ne la kii nii surtout ñi nga xam ne dañuy vivre ak benn handicap euh, kii nii peut-être dafa dëggoon ci machine dafa dëggoon ci lii ainsi de suite pour dire que ne man li may jël ci ci ci histoire 4 avril li nga xam ne moom laa ci am comme souvenir moom mooy tableau yooyu noonu nga xam ne am naa ko mais weesuwul nag ne daan naa dem la veille du sax jour bi fi nga xam ne moom moo di place de la nation pour xool affaire yi ni ñu ko defee mise en place bi ak surtout li nga xam ne moom moo di flammeau yi flammeau xamatuma ndax amatinaam léegi mais le 3 avril euh, après discours à la nation yi nga xam ne nag ñoom ñoo di suñu soldats yi dañ daan yor flambeau yi di wër euh, surtout nga xam ne euh, fi défilé bi di amee camp bi nga xam ne moom moo di camp du Diassé dafa nekk foofu sori wulax tamit li nga xam ne moom moo di beneen camp bi bi bi nekk si foofu nga xam ne moom moo di pompier

vraiment nek am fierté nekk dem dans loolu sax moo dugal ñu bëri ci armée mhm. c'est-à-dire que vraiment amoon na engouement amoon na motivation bo xam tax na ñu bari mhm. doon bëgg def service militaire mais yow malheureusement yow fu ñuy sax do fa jege non non non euh, militaire kay merci rek avant avant won légui nak après yëf yi day changé mais ah. avant vraiment euh, c'était pas ça c'est bien parce que tax na ñu développer li ñuy concept armée nation son mhm. papa dina mako ko décortiquer ci kanam euh, yow mom duma la duma duma wax loñu parce que fekk nga fekkati wat mais lan nga ñu mëna ci ci loo xam la fête de l'indépendance. Nous avons beaucoup de générations. parce que 1960 Nous avons 10 ans pour faire euh, de l'indépendance. fête mhm. à l'école primaire de Yang. Mhm. comme nous ko kii nous mhm. mais nous ñun sëbëkoo le sol. Nous avons wax sol. Euh, kaki la dan bu ak chemise booba Sonadis moko dan daan jaay di ko trois francs ensemble bi légui chaque élève mom nga dan sol pour dem école ba école tijjee bu feetu indépendance amé aussi bu ni défilé mom la dan sol donc école yépp dan dan défilé euh, parce que à part école yi aussi amoon na euh, wa police ak kii détachement boo xam dañ ko daan jëlee Thiès mu ñëw foofu parce que man je suis de Tivaouane mhm. waaw ñu ñëw ñu ñëw defi defi leen nu mais man li ma gënoon a jàpp ci défilé bi mooy d'abord y avait le préfet da daan toog nii ak le maire jamono jooju ku ñuy wax Alioune Mbaye Paala moo nekk maire Tivaouane waaw moom la ñu tuddee Petit Mbaye waaw waaw non moom la ñu tuddee ah, kii Alioune Mbaye Nder ak Petit Mbaye bay Alioune moom la ñu ko tuddee mm-hmm. Alioune bay Nder maa ngi fàttaliku ngénteem <laughs> boobu ñun dañuy boobu ñun dañuy dem tool dañuy dem tool romb foofu ñu woonu ay taalibe la ñu woonu di nu sarax laa mais dañuy dem tool ah géwél ah bien sûr. Hmm. <laughs> non ci parce ci ban ci daara laa nekkoon. moo tax ah. <laughs> mais gis nga défilé bi da neex macha allah ak euh, fanfare bi. Hmm. mais ngoon gi moo daan gën a neex. parce que ngoon gi ci terrain préfecture bi dañuy ñëwaat foofu dafa amoon ay jeux yu fay def yoo xam ne dañuy joxe ay kaddu hmm. par exemple course boo xam ne nii dangay ngay fab saako sol saako ba ci sa ndigg. ñuy daw ñi jël pee ñu leen di neexal. amon na aussi lo wax genre kermesse la daan doon. Mhm. amoon na ben photo bu daan samp. Mhm. def ay cadeau ci kaw. Mhm. legui ngay grimper bo grimper ba way man yegg ci yow nga détaché ko ñew lool lool lan dan def. amon na amon na même course mbam amon na fa. parce que tu Tivaouane dafa bari ay lawbe. tu mm, Tivaouane mom dafa bari famille lawbe machallah allah. te lawbe mbaam moom ay xal legui nak motax ngon gi dan organiser course mbam mais course mbam lu ko gëna neex. da ngay gis mbam bo xam da ngay dem ba nga def day raw rek mu wëññeekuwaat jëm beneen yoon. mais mais mais am na

lu soxal li nga xam te moom moo di kon euh, musique bi am ñu yore yeneen euh, li nga xam te moom moo di kon escorte bi mhm. donc ay ay ay catégorie la mhm. waaye actuellement nii mhm. ñii nii ñoo yore musique bi maanaam ci lu jëm ci euh, détachement bi au niveau de donc du palais à chaque fois buy ganti ñëw ñom ñokay bakkal waye tamit bu njiitu réew mi waree def bataxal mhm. wala bokk yu melni ni di lever des couleurs mhm. ñom nga gis ni ñu sañse ba jekk ñu am mhm. ku leen di commander parce que da fay am ko xamanteni bu président gi dem sax day top ci ginnaam euh, wax ko ki leen commander ba paré da naka à vos ordres lay tëjee ay waxam donc mu tàggoog président président dogo dem fon drapeau bi ñu daal koy defal hymne national bi yëkëti drapeau bi ño nek non ci palais nga xamanteni ci kanam tuuti inshallah allah euh, dinañ ko am buñ commencé euh, li nga xamanteni moom modi kon lever des couleurs bi parce que day nek lu nek dans la sobriété maanaam du nekk lu am ay xum wala dara parce que euh, contexte bi niñ ko waxee moko laaj. Mhm. parce que président yëpp ni la il faut que mu am temps. Mhm. buñ mëna mën familiariser ak tamit euh, pré parce que li défilé fay laaj. Euh, préparation mhm. répétition ak tout le chorégraphe bi ak moyens ak matériel yi mi laaj. donc loolu motax cette année mu nek ni mu nek lo xamni aussi ça ça se justifie mais bëgg naa ñu dugg ci waxtaan bi. moy ni gis nga. keroog bi nga xamee ni jomaa jóge na fi mu prester serment. Mm-hmm. Mm-hmm. booy dugg ci palais bi. Mm-hmm. xam nga ay fas la àndal. Euh, fas yu weex. ñu leen ñu ñu ñu ñu leen di wax ay xacc. ñoo jiitu. après escadron monté. waaw escadron monté bi mbëng yi tegu ci. mais li ci gën a li ma ci gën a frappé. mooy déguisement bi nga xam ni moom la cavalier yi doon solo. parce ñoom. solul loo xam ne moderne la. Mhm. Mhm. mais ni buur yi daan solo la ni solo. Mhm. waaw gis nga même même garde rouge yi am na genre mbaxana yu sesia yu gudd yu xonq yooyu. ñoom Lat Joor Jóob noonu la daan solo. ba pare nga fa manteau bu rouge teg ci kawam. waaw léegi loolu mooy wane ni. bien que ñun modernisme am na. waaye ba léegi am na loo xam ni. ñoo ngi koy jàpp ci suñu suñu cosaan. mu nekk lu am solo lu am solo. <laughs> waaw dama ko bëgg a laaj 1960 ba léegi. ak ah, euh, bi ñu amee indépendance ba léegi. muy 64 ans. 64 ans yooyu ci biir taareex euh, mag ñi fi nekkoon muy buur ceddo sëriñ ñooñu lu ñu liggéey ci indépendance waa xam nga bala ngaa wax indépendance da ngay wax lan moo tax ñu lan moo tax indépendance ayca parce que nit mhm, dama euh, mhm, mhm. réew mi ay buur ñoo fi nekkoon réew mi ay buur ñoo fi nekkoon ndax dafa séddaloo woon xanaa xamoo ni Sénégal fleuve Sénégal moo yàgg. Mhm. mais turu réewu Sénégal 1960 la commencé. Mhm. ñu bari xamuñu loolu. Mhm. turu pays boo xam ni non pays boo xam ni mille neuf euh, Sénégal lu tudd. kooku 1960 la commencé. muy réew moo xam ni mooy li wër dex gi. muy muy muy fleuve Sénégal. avant cela lan moo fi amoon ay buur ñoo fi nekkoon. booba Kajoor a fi nekkoon ak Bawol ak Siin ak Saalum. ak waalo nga jëm boori bundu jëm ñaani ba kéro ngay dem casamance fu ci nek ay bour ñoo fa nekkoon kajoor dammee la fa nekkon bo boo demee baraga fa nekkon mm-hmm. euh bawol téña fa nekkon nga dem jolof bour ba jolof la ñuy wax nga dem sin ñu ni mat sin mm-hmm. ñoo fa nekkon ñi nak bour sin mais mat sin parce que bour tur wolof la mm-hmm. mais séeréer mat lay wax ñooñu ñoo fi nekkon bu jëk ba nak jolof la ñu yilifoon léegi nag tubaab yi bi nga xamé ni dem nañu ba ñëw fi parce que tubaab yi commencé wuñ fee ñëw euh, ci temps temps colonisation bi. Hmm. tubaab depuis depuis 17e siècle lañ commencé dugg Sénégal. du dugg Afrique bi nga xamee ni seen euh, développement scientifique may na leen ñu trouver boussole trouver gouvernail ci lañ commencé nag dem di mën voyager en haute mer. ci lañ agsi nag découvrir la euh, découvrir le Cap-Vert. découvrir hmm. yeneen yeneen gox ci biir ci Afrique yoo xam ni. Hmm. danoo ci géej bi nu xoolee situation bi xamni fi man nan nañ am matière première bu nu mën jaay ci ci ci am ci amerique bu ko defé man bañ ko légui nak bu boba ak ak ay jaam yo xamni dañ leen daan japp lool moy traite négrier bi ci la commerce triangulaire bi commencé won nga xamni da ngay ñew Sénégal ba nga ñew Afrique indi fi ay pakot jaay ko sunu bour yi ñu jox la ay jaam nga yobbu amerique jaay ko américain ñoo jox la coton ak canard sucre yu mel non nga yobbu ko sa industrie en Europe non lañ commencé ak ñun. mais bi ñu demee ba mu yàgg yàgg nag léegi ñu xam ni ñoom am na industrie yu bari te loolu dafa yàgg te esclavage abolir nañ ko ñun léegi nag na nu dominer Afrique benn yoon moomal ko suñu bopp nga xam ne ñoo leen di imposer li ñu bay diñu imposer ñuy bay coton diñu imposer ñuy bay gerte. parce que pour mu mu nekk ay matières premières yoo xam ne ñoom lañ soxla seen industrie yi di jël suñu source d'énergie bi ak suñu matières premières yi loolu la loolu la ne bi bi ñëwee nag amoon na résistance ñu fekk fi ay buur na wax dëgg yàlla ñuy xeex ak ñoom

tubaab yi xeex ak mom xex bu yàgg pendant 23 ans Lat Joor résister bu xex moy daan na deug waaw pendant 23 ans Lat Joor résister na ko tubaab gagné leen nak ci ay batailles yu bari ba ba ko ré en 1886 fële euh, à à des xale mm-hmm. donc non lan def euh, xex na nak Alburi moo daan doos waaw Alburi bi nga xamé ni dem nañu ba nu rey Lat Joor moom ci boppam mu xamni amatul doole mm-hmm. ci la ni man damay gaday ànd ak waa Jolof dem dem fekki Amadou Cheikhou nga xamni moy doomu Euh, El Hadj Omar Foutiyou Tall. bu defee ñu ànd former une grande armée pour mën a résister à la colonisation. Mhm. ci la dem nag far yàlla mu dem mu dem mu dee fële ci Mali. Mhm. yow ci do du ci la dëkk ba tudd waaye nit ñooy wax. Mhm. dooso dooso dooso. noonu la mu demee léegi nag bi tubaab yi reyee buur yëpp. bon sëriñ si aussi ñu sonal leen. ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul nga xam ni tubaab yi dañu ko déporté du ma wax ci baatin bi. Euh, parce que historien la Euh, mais li ma mën a wax ci nga xam ne mooy li concret. mooy Serigne Touba taalibe yi mu doon dajale ampe taxoon na tubaab yi ñu yaakaar ni ñoom duñu am nit. waaw taalibe yi fu mu dem tubaab taalibe yi topp ko. léegi nag tubaab yi ni kon kii nañ ko déporté ci lañ ko jëlee nag yóbbu ko Gabon. ba ba mu am fa presque huit ans yu ma manqué tuuti. Euh, ñu soog ko indiwaat nag bi mu ñëwee taalibe yi gën a bari ñoom ñu def ko résidence surveillée. dem na yóbbu nañ ko sax gànnaar ci ci Sidiya Baba. après foofu tam mu am fa mbooloo nit ñi ñu jaaxle ñëw la ngi def ko résidence surveillée fii ci kii. ci ci ci jurubel ba 1927 ba muy ba muy wuyu ji boromam. donc tubaab yi noonu la def dañu maîtriser ñëpp. canaliser leen ñii ñu rey leen ñii ñu déporter leen bu ko defee ñoom ñu mën li ñu bëggoon nga xam ni domination territoriale la ñu am. Euh, defar fi seen i armée defar seen espace dinu bayloo li ñu bëgg dinu def loo travaux forcés. noonu la def léegi nag loolu mooy colonisation. Mm-hmm. ak ah, colonisation nag. danoo moom day toll jamono nag ñun tamit ñu bëgg nag wax dëgg yàlla léegi am suñu indépendance dellu mamaat suñu bopp te danoo ragaloon tubaab mais bi demee deuxième guerre mondiale 39 45 nègre yi nga xam ne demoon noonu muy muy muy les spies les tirailleurs sénégalais bi demee gis tubaab yi xool seen dundin xool lépp ñoom ci seen bopp ak euh, boobu avec l'école de fils de chef bi nga xam ni moo nekkoon Saint-Louis te Jean Dade créé woon ko. école boobu nga xam ni buur bu mosaan rey leen fay yóbbu doomam mu jàng. bon mu dema dema dema nag ba Sénégal commencé am des intellectuels yoo xam ne ñu ngi formé wu. léegi nag plus maintenant euh, bi ñu jógee deuxième guerre mondiale nag euh, ñoom Ousmane Sembène nag ñoom Léopold Sédar Senghor rek ñoom Aimé Césaire ak ay Léon Damas ak ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ay Birago Diop David Diop benn ñoom ñëpp kenn ku ci nekk nga commencé bind nag. bi nga xamni ni mom lañu gis. Mhm. ba paré bind di conscientiser nit ñi pour que nit ñi nak xamni ni euh, ñun tubaab war no konte du mom amna ci ñoo xamni jangal nañu ci soir mais amna na ñoo xam ne ko. Mhm. par exemple ku melni Lamine Senghor. Mhm. koku dafa xex dafa xex tubaab bi dafa xex ak tubaab bi ci ci walu idée ba tubaab dañ ko mujj déporter ba mujj gi mu dé mu dé Europe Lamine Senghor bo mi ngi dëkkoon Joal mooy maamu euh, góor gi Idrissa diokh bi nga xamni nekkon nekkoon na fi directeur IPRES dafa liggéey bu rafet. Mhm. Euh, góor gi Idrissa momu mhm. euh kor kor aja Aïda Fall. Mhm. kor aja Aïda Fall Candé euh di bàyyi mam lena koku mamam Lamine Senghor. bokk na ñi nga xamni ño doon xex pour senegal am indépendance lolou dañ ko doon neub nit ñi mais ku melni ñom landing savané ta yoon créé seen parti bi ñom ñoo génne yu mel noonu mhm. nga jël jël ku melni alien cété jaato aussi xeex na ak mhm. tubab bi mhm. ba ba ni ko tubab bi réé mom tamit pour uniquement Casamance ñu baña bay guerté donc lool mo fi amone avant ñu am indépendance bi nga xamé nak dem nañ ba tubab bi xam légui indépendance mënu la ñak ci la dégol nak ni xaaral ma dem ji ma négocier ak ñom mu jëk ñëw Sénégal en 1958 bi mu fi ñëwé ñu tey ku fee ci place Protet. Mhm. ah foofu nag place Protet mooy place actuellement place de l'indépendance. Mhm. booba Senghor bañ a fekkee daal bañ a fekkee mbir mi parce que Senghor moom xam nga euh, na kii moom masque masque blanc euh, duñ ko tête noire masque blanc la woon. Mhm. waaw wax dëgg yàlla moom tubaab bu ñuul loon waaw mu euh, Mamadou Dia mi nga xam ne moo nekkoon ak moom tamit ñu bokkoon formé seen parti boobu ñoo a SFAO moom tamit mu mu mu bañ a fekk ndaje ma ñoom ñëpp ñu dem Europe. léegi keroog wal jooja njaay moo fa nekkoon pour tontoon waxanta waxtaan ak dégul xamal ko ni ko réew mi indépendance lañ bëgg alors y avait des jeunes euh, Mbaye Jacques Diop bi nga xam ne nii Rufisque la nekkoon maire la maire de Rufisque ak jeunes yu bari yu àndal ak moom ñoom ñoo yoroon ay pancarte taxaw naan ko indépendance mhm. immédiate et immédiatement mhm. léegi nag ci la dégool mere nag daal ni si vous voulez l'indépendance prenez-la mhm. waaw waaw mais booba mais boobu xam nga ñooñ doon wax ñëpp. Mhm. yoruñu baat bi. ki yor mhm. baat bi mooy Senghor ak Lami ak euh, ak Lamine Gueye. Mhm. ak Mamadou Dia. te boobu nekkul fi. ci la Senghor continué nag daal dem gine bi mu demee Guinée nag Cheikh ture moom leen indépendance immédiate moom le nom la grand nom de la Guinée la waaw mais tubaab yi bi nga xamee ni Guinée ñu négocier négocier négocier xam ni gine gii moom bàyyi na leen. ñu ne léegi ñoom tam li ñu fi defoon ci colonisation bi yëpp dañ koy toj. gis nga gaar yi euh, train yi. nu mu tëddee raay bi. Mhm. Euh, infrastructure yi route bi tam ne kii ak. lépp loo xam ne rek defoon nañ ko muy infrastructure ci Guinée. Mm. tubaab bi dañ ko détruire soo ko dem. Mm. loolu moo taxoon Guinée sonn. loolu tax ñu doon wax moo ko dal ci wàllum lépp lu fa tubaab bi defoon xam nga mm. ñun yow yi ngay gis fii. préfecture yi waaw boo xoolee ah, ko non Guinée amul loolu. ah dañ ah, tax tubaab bi toj ko. parce que comme ñoom ñoo ko fa tabaxoon Mm-hmm. té légui ñi naan dañuy taggu ak yéen tay ji sey bi tay day tass ah foofu ñaan naan Senghor intelligemment la jëlee. waaw légui légui Senghor mom mm-hmm. dafa moom Mamadou Dia danoo négocier. Mm-hmm. danoo négocier ak tubaab yi pour que au lieu ñu am indépendance. immédiate immédiate totale. ñu bok ci communauté française la communauté française mais communauté française bobu aussi euh dafa am lu nekk ci biir. moy dañ ko tudde indépendance mais du indépendance. parce que d'abord ñun. ci jamono Senghor amuñu droit jëndante wu la ñuy jaayanteeg beneen réew bu France. Mm-hmm. lépp lu ñu soxla aussi war koo jënd ci beneen réew France moo koy jënd jaayaat lu ko. Mm-hmm. Mm-hmm. te aussi France moom moo fi am base militaire. suñuy militaire amuñu droit jàppale beneen réew bu dul France wala Nations Unies. Euh, Euh, onze points la yo, xam ni yëpp. Mhm. tubaab bi dañ ko si dañ ko dañ ko. mais am question boobu nga yobale ko rek. Euh, nga balaa ngaa sa question pour Abdou mhm. euh, nga may ma rek parce que amna image yo xamné mi ngi défilé. té faw ñu ñu commencé parce que fu tollu ni nii. Mhm. léegi ki nga xamné nak mom modi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye génn. gis nañ ñi nga xamné ñom ñoom di officier yi. ak ñi nga xamné ñom ñoom di les gradés de l'armée. ñew nañ sank yaa expliquer parce que bo demee fi nga xamné mom modi palais dafa am ñi nga xamné ñom ñoom yoré musique bi nga xamné mom moy instrumental wala musique bu armée eh, nationale ñom ñoy bàkk ki nga xamné mom moy njitu njiitu réew mi buy am gan buy ñew wala lépp lo xamné cérémonie officielle la mu nekk détachement bu gendarmerie mu nekk détachement bu gendarmerie yaa ngi doon wax sànq ci nga xamné ñom ñoy di escadron monté yi muy fas yi mhm. parce que foofu dafay ñew ci histoire pour wane ni njit euh, bour la yalla moko defal lolou te ah. comme ni nga ko doon waxe ci Senghor mm. euh, moom dafa doon jël ci li nga xam mom modi culture ak tradition boole ko lolou ko indi mm. amna benen bi moy flèche yi nga xam mom moy mooy ñi yore euh, moto yi motar yi ñom ñoy xalil ki nga xam mom modi moo rew bi escorte bi mm. ngir bu waré genn mais bo xolé musique bi commencé na depuis ñi nga xam ñom ñodi wa armée ñu commencé di ñew ba gradé yi ñëw gis nañ nak ñi nga xam ñom ñodi présence ministre yu bees parce que

bii ñoom Pape Sagna euh, mbay ñëwee am na ñoo xamante ni dugguñu parce que mm. dañ ni ko non. Mm. président dugg na pare kenn dootu dugg. non euh, bañ demee pare tamit am na ñoo xam dañoo toog ba caag ñu sonn génn. Mm-hmm. bi ñu génnee itam duggaatuñu. Mm-hmm. Euh, ok ah, armée moi mhm. même non armée même Boudé ay ay faral ngay di dem ci sen ay rencontre wala mhm. événement yo xam dañ koy faral di am que mhm. euh, ki nga a euh, euh, kilifa gi ça dépend parfois na directeur parfois na ministre de tutelle wala ki nga sax mi invité dañ lay jox li nga organigramme lay heure bi encore très discipliné aussi non trop même même trop même. Euh, non seulement dañuy dis discipliné mais dañ lay jox toutes les informations ba nga xam ne yow boo waree dem si li nga xam ne moo di seen rencontre. Mm-hmm. Euh, dafay dafay dafay pare fu mu toll nii. da ngay xool ne ñoom bu ñu la nee ñoom ñooy seul euh, entité bi nga xam ne ñoo mën a organiser benn événement ñu ne euh, lever des couleurs bi day dire 15 minutes ñu def ko 15 minutes. parce que temps lay tàmbale temps lay jeex. Mm-hmm. Euh, Abdou nag mu nekk image boo xam ne à commenter pourquoi à commenter. Mm-hmm. parce que euh, synergie lay indi. Mm. Euh, boo gisee image bi da nga naan euh, gis nga moom ki nga xam ne moom mooy premier ministre dafa mel ni moom moo war a ñëw sax usman sonk parce que mm. noonu la demee. Mm. gis nañ ñaari ministres yi ñëw ne gis nañ oto boo xam ne. ñu ngi seen d'ailleurs avant ñoom ñu ñëw sax général Meissa Niang. di grand chancelier euh, beau ordre national du Lion mhm. ñëw na moom moo yore lu jëm lu takal eh, eh. raay yoyu mhm. barki dem rek moko don doon euh, mhm. takkal fële nga xam te moom di kon euh, ki di le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak collier beeg yu mel donc mu nek ñu denk lu ñu mel di général Meïssa Ndiaye Meïssa Niang waye tamit gis nañ ni changement amna tamit kenen moy Pape Birame Dieye nga xamante ni moo remplacé ki nga xam te moo Ndiaye également nekkoon fofu lay ci nekkoon aide du con. du chef de l'État euh, sortant le président Macky Sall. Mhm. Euh, pour bàyyi de nga continuer. Euh, mhm. pour rappeler que nous moom mi ngi mise en place bi ñu ngi noonu taxaw une fête également de l'armée. lola laa doon ñëw hein, mu une fête de de l'armée ni nga c'est-à-dire le général Boko ko gisee muy ñëw ah, le fait que armée ñi si nekk ils sont charismatiques mm. de nga leen di gis rek li nga doon wax sànq da nga di bëgg si uniforme bi. Mm. nekk tenue bi. quand je dis tenue deux tenues ah mu nekk le port vestimentaire mais ñoom si seen Euh, euh, c'est des personnes yo xamné da ngay envier da ngay bëgg euh, nek comme ñom li ñu li ñu li gis nga tout à l'heure yankay wax le grand chancelier ñëw na parce que mom aussi euh, mën nañ japp né mom moy kilifa yi tey jii nii armée bi donc bon tax au commandant au commandant bi mmh. moom mooy kilifa gi moo juste militaire eh, moo tax moom moo moo moo moo moo moo moo mujjee ñëw si ñi nga xam ne mhm. ñoom ñooy sol tëni mhm. waaye takk der yi léegi nag si la ñu commencé waa membre du gouvernement membre du gouvernement bi aussi dafa am euh, chronogramme boo xam ne noonu la ñuy ñëwee mhm. gis nañ oto boo xam ne léegi ñu ngi koy seen je ne sais pas on n'est pas dans les secrets de Dieu mais on suppose que ki nga xam ne moom mooy euh, le premier ministre Ousmane Sonko moom moo si war a nekk di xaar tout à l'heure nag ki nga xam ne premier ministre bu ñëwee kii di euh, njiitu réew bi président Bassirou Diomaye Faye mu wàcc ñu def li nga xam ne moom moo di lever des couleurs mais je disais que c'est une fête militaire parce que Taïdini, euh, mu nekk corps yëpp corps militaire yëpp que ce soit armée euh, mu nekk gendarmerie police euh, pompier service d'hygiène ñoom jour bi dañ leen di publicité dañ koy célébrer c'est une fête nationale certes mais nous lañ ci gëna sentir pourquoi nous lañ ci gëna sentir parce que nous ñoo indi li nga xamné mom modi stabilité suñu réew ñom ñoo tax ñu ñuy nelaw ñom ñoo tax tay jii nii ñun ñu am sañ ñu tok ci plateau bi di wax di commenter parce que dëkk bu amulé stabilité bu amulé li nga à mom modi moo sécurité euh, pour dund dëkk ci dëkk bi wala dund ci dëkk bi da fay jafé mais tey jii aussi y a un contrat social mm. bo xamné dafa am et ñom ñoo fi nekk ñi nga xamné ñom ñoy permettre le comment vouloir vivre en commune mm. euh, en société bobu nonu ñu mun ko am et lolo tax euh, je trouve que c'est des images yo xamné war nañ ci jangat war nañ ci waxat mais surtout le respect de l'autorité ndax ñi nga ko doon wax tey jii di boo xoolee ñoom ñëpp tous autant qu'ils sont da nga leen di gis dañuy